boo leen bëggee am mbooleem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bés fu ñu bind abonné bu leen fàtte bés fu def cloche bi foo leen mën ne ci àdduna bi ngir ngeen mën a am mbooleem vidéo yi fi bàyyikoo wajjahtu wajhi liman akrimu bi sari mawlidi man fil bahri asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokk julli di mbokk taalibé yi yéen ñi bëgg barkeelu si liggéeyub taxawub jumaawu Touba jëm si entretien wala maintenance wàccaa yu màggal Touba dundal weeru koor dundal gàmm saytu armée lu baqiya yi taxawu personnel bi si wàllub social ak yeneen waa association nationale muqaddimatul xidma Espagne ngir indi ak jàppandal si liggéey bii si ndigalu sëriñ afiya buso imam mi jiite daayira bi ñooy yëgal mbokk taalibe yi nekk si diaspora bi rawatina waa Europe ne nag mën nanoo wéy di yónnee seeni i barkeelu si transfert bancaire si compte association nationale muqaddimatul xidma Espagne ci Caixa Bank numéro ES 17 21 00 15 11 87 02 00 500 647 Biki Swift Caixa Bank BBXXX mbokk yi ku si nekk si Sénégal mbaa ci Afrique compte Orange Money yi mooy compte yi nekk si moomeelu daayira bi di 77 696 86 képp ku soxla yeneen i leeral jokkoo ak daayira bii si numéro yi ñuy bëgg joxe mosquée Touba 77 434 33 15 wala si 76 697 60 41 bu dee Europe jokkoo leen ak Serigne Assane Diop si plus 34 632 581 998 Serigne Fallou Dia plus 34 631 216 262 jumaay Touba ji nag Serigne bi nee na yàlla sunu borom may na ma ab tabax bu ne seng bu fi des ba aljana waxoon na it ne ku feeñ si liggéey bi. dinga di feeñ ba faw yàlla nañu yàlla dimbale ñu mën di si jëf ba faw te yàggal fi sunu kilifa gii Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké ak mbooleem njabootu Serigne tubaa gépp jërë ngeen jëf borom bi subhaanahu wa taala seere na amul benn buur buñ war a jaamu budul moom noo ngi baalu àq ñépp te di leen baal àq tey ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu bokk ñu ñépp bokk yi sunu xutba tey mi ngi jëm ci dundal jàkka dundal jàkka ni ko bayaankat bi doon leeral la léegi bokk yi xam ngeen li gën a màgg ci jamono ngir jege borom bi subhaanahu wa taala bokk na ci tabax jàkk wala amoo loo ko tabaxee nga fekk fu nu koy tabaxee nga jël sa alal def ca bokk na ci nga am doole ja tabax ko wala amoo loo koy tabaxee nga fekk fun nu koy tabaxee nga jël sa alal def ca ndax jàkka bu fekkoon na sun boroom dana am kër gum dëkk ci suuf wala néeg bu muy dëkk ci suuf ñi di ko ko askanale kon jàkka yi lay doon ndax mooy barab bu ñuy jaamoo yàlla ba noppi di ca wéetale yàlla di ca tudd yàlla di fa jàng téerab yàlla bi di fa tasaare xam-xam di fa yëkkatee ak réer di fa waaraate di fa def ay xutba di fàttali nit ñi ngir seen xol nooy gannaaw bi nga xam ne seeni xol dafa wow teg dara waralu ko dud ak saggante ak nuur ci bakkaar ak nekk ci biir àdduna moo waral kon ñaata ci nit nga gis yàlla jéggal leen seeni bakkaar te jéggal gëm leen jéggalee seeni seeni bakkaar warul dara waralu ko lu yàgg jam ca jàkka ja ngir déglu lan fay wax loolee dem ba wëlbatiku seenum xel ñu tuub tuub gu sell yàlla jéggal leen seen bakkaar waaye tamit ñaata doomu aadama nga gis ci kaw suuf ñuy góor góorgóorlu seen diggante ak seen boroom ci jaamu yàlla ci xeeti jaamu yàlla yépp ñag umpale woon nañ jaamu yàlla googu waaye dem nga ganuy dem ca jàkka ja di teewe waaraata ya ak xutba ya tax na seeni jëmm soppiku ñu daal di góorgóorlu jëmewaat seen boroom ci xeeti jaamu yàlla yoo xam ne ñoom xamuñu ko woon ñaata ci ay doomu aadama nga gis kon loolu moo lay xamal ne dundal jàkka wala nga tabax jàkka wala nga bokk ca ña koy tabax nga jël sa alal def ca moo xam nu mën a toll ci kaw suuf li féeg feeg yowmal qiyaamatil akbar jotagut jàppal na sab yool yow mi ngi dox li feeg it jàkka ja ci boppam ma nga fa ñu di fa julli jàppal na yow sab yool it mi ngi dox ndax jàkka dafa bokk ci wax fu yi wax fu mooy loo xam ne nit bu faatoo bàyyi ko fi kenn du ko donn déggagoo leen nit faatu mukk ñu koy miraas ne moo tabax jàkka ji nan miraasala jàkka ji amut képp ku jëloon ay milliards def ko ci jumaa wala nga tabax ko ci jàkka xëy suba faatu bu nuy miraas boolewuñ ko ci sa alal lu ko waral jàkka yàllaa ko moom jàkkay tiijaan amut jàkkay murit amut jàkkay qaadir amut jàkkay laayeen amut wa anna almasajida lillah fala tad'u ma allahi ahada jàkka kenn naka ma mu yàlla dàkkanta li ñuy dàkkal naan jàkkay murit jàkkay ci jànn loolu ay kinaaya rek kinaaya dàkkanta la rek li tax ñu di ko di ngeen koy dàkkante mooy tabax kan ko tabax waaye benn tiijaan sëñ te woon a jàkk am murit du juri ci jàkka ji benn murit sëñ te woon a ab tiijaan du juri ci jàkka ji jàkka moom yàlla ka wa anna al masajida lillah fala tad'u ma'a allahi ahada kon loolu moo lay xamal ne dund gi nga koy dundal ak tabax gi nga koy tabax ak lan cay def ci alal lu mu bari bari bari boo faatu woon dund ne ak jàkka ji diw moo ko tabax na bokk ci miraas bi kon yàlla rek moo ko moom moo waral kon bokk yi yonent bi sallallahu alayhi wa bi mu ñëwee Madina bi mu jógee Màkka ñëw Madinatul Munawwar bi gileemam gi yësee sañu teeru ko teere bu am solo boobu tale albadru alayna min saniyati lwadaa'i wajaba shukru alayna ma daa lillahi daa'i ba yonente bi na ndax da ma maa sopp ñu ne ko ñun rek yow rek lañ bëgg mu ne wallahi anna qalbi yuhibbukum man mii di rasulullahi sama xoli sopp na leen koroog ba nuy tabax jàkka ja suuf san ko doon tabaxee ba na jaar ñoo ko moom waaye yonente bi da leen woo na leen ndax du ngeen ma jaay suuf si ma tabax ci jàkka ji ñoom ñu ne ko suuf sii duñ ko jaay ku dul ku am njëgam ku dul suñu borom subhanahu wa taala yàlla jëlal jàkk yow Muhammad jëlal suuf si nga tabax jàkk jaay suuf si suñu borom subhanahu wa taala kon loolal la tekki mooy ñoom payut yàlla lañ cay wut waaye wuñu ca payut mbindéef loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dal na ko ci bi nga xamee ne ñëw na Madina kon liy dundal jàkk bokk yi su mboro wax ne innama yaamaru masajid allah man amana billah kii dundal jàkka ñi koy dundal mooy ñi gëm yàlla ba noppi gëm yowmal qiyaam gëmit di taxawal julli di natt asaka ca ragalul kenn ku dul yàlla ragalul kenn ku dul yàlla ñooñee fa ada ulaika ulaika min al ndax lee bu àllëgee yàlla boole leen ci way jub ya bokk dundal jàkka mi ngi tàmbalee ci tabax ko ginnaaw bi ñu ko tabaxee ba noppi nag mi ngi tàmbalee ci di ko setal di ko bare di ko toppatoo te na mu ware gis ngeen ndaw si daan bare jàkka ji ci yoon jamono bi sallallahu alayhi bi mu faatoo ci yonent bi sallallahu alayhi wa ko mu am ay fan mu laajte ko ñu ne ko kooku faatu na mu ne tegtal leen ma bàmmeelam ñu tegtal ko bàmmeel ba mu dem waat ko ci boppam daa di wax nag bàmmeel bii de ak lëndëm a nga ci woon waaye jullee gi tax na suñu borom def ci leer kon loolu lu ko ko may mooy toppatoo gam doon toppatoo jàkka ja di ko bale ak di ko setal kon képp koo xam ne yaa ngi ci barab jàkka jagale fa wala jumaa jagale fa bun koy setal ak a toppatoo demal def ci sa kattan ak loo mem waaye bokk na ci li ko liy dundal jàkka mooy leeral jàkka ja moo xam da nga koo peinture moo xam da nga caa def ay làmp moo xam da nga caa def luy tax nit ña buñ ca dundee buñ ca duggee seen xol sedd loolu bokk na ci li nga xam ne bokk yi mooy dundal jàkka waaye nag li ci gën a am solo bokk yi mooy waxtuy julli yi nit ñi di bàyyi seen yitte dem di julli ji ci jàkka yi bari na ci jàkka yoo xam ne koor gi ñu jublu si saa yu jàkk saa yu dikkee jàkka yi dañuy fees ci njëlbeen waaye mujj gi sax jàkka ji dootoo gis kenn ñi jege tey dégg nodd gi ci jàkka yi nga xam ne ñoo leen jege nañuy dem ci jàkka yi di julli ji jàkka tabaxun ko nga rek ngir meebal wala estati wala ñu dikk di ko raaye siyaare dañ koo tabax ngir julli nañuy bàyyi yitte yi di jug lali fajar yi di wàcc lali di bàyyi di dagg yitte yi ci tey dem ci jàkka ji jàkka yi di julli ji dara gënu ko farata dëkk ak jàkka ji nag dend ak moom ñuy nodd guddi ak bëccëg ca yow bala nga jee taxaw rek korite dafa jóg wala tabaski dafa jóg wala langam ak langam loole du dégg du yoon su fekkee ne amoon benn ngant bu la tee dem jàkka deel dem jàkka di julli bari na ci ñoo xam ne ay ndaw laan gumbawun pattuñu laggiwun amuñu benn ngant waaye jàkka jee sax duñ fa te ñu ngi ci seen yitte dang dang guddeeg bëccëg ci xamuñu fan leen mën ni ya di dare muy dee kon nañuy dem ci jàkka yi di julli waxtu juróomi ñi sori ca mënuñuy julli si waxtu juróomi na nañuy dem ci jàkk yi di julli ji jumaa bokk yi ñetti ajjuma ku ko toog amoo benn ngant boo julli ji jumaa ngëm yàlla dañu sa xol léeg-léeg nga gis ku nekk ci dëkk wala mu nekk ci quartier amul benn ngant bu ko tee julli ji jumaa topp bakkanam rek ak bi dox bu bokk yi kookee bu fekkee ne am na ñetti ajjuma yum julli ji wut jumaa yàlla génn ci xolam ngëm yàlla kon nag nanuy dem ci jàkka yi di julli ji jàkka yi bi ñu ko fi tabax bëgg ci ciy jullee tax waaye jàkka ja rafet na mbind ya rafet na couleur ba rafet na nam rafet na ca bu noddee duñ gis ñaar wala ñett loolu taxul yàlla di tabax lu jàkka julli moo tax ñu tabax lu ja ñu tabax lu jàkk doo leen dem ci jàkka yi di julli ji bokk na ci li ñu jàkka mooy xam ban fay jàngale ñuy dem di ko déglu ci ca di ko jëfe muy xam-xam yu am njariñ ak yenn ci yenn yenn ci mboolem toppi jaam yi borom bi subhaanahu wa yàlla nag dana fay ki tabax jàkka wala mu def fab làmp wala mu def fab ventilateur wala sax jàkka ji amuñu ndox mu fexe ba xëcc fab robinet wala bënn fab teen wala dëkk bu amul ndox mu fexe ba dëkk ba am ndox wala teen loolee suñ borom dana ko ci tabaxal ëllëg àjjana loolee kon lu am solo la képp ku ko yàlla man loo foo ko gisee nga di fa def ngir yàlla bokk yi war na ci képp koo xam ne tabax nga jàkka nga sellal la ngay def alal jàng koy tabaxit na sell waxuñu rek nga jël alal ju araam nga tabaxu jàkk donte alal ja alal ju xaraam la ña fay julli si moom am nanub yool waaye yow moo ko fa tabax yàlla du la ca fay dara ñu bàyyi ci xel ñu bàyyi xel na tamit li ngay tabax jàkka ji na doon alal ju lew la ngay def ci biir jàkka ji tamit na doon alal ju dagan boo ca defee alal joo xam ne lewul ñu fay julli ji si ñëpp am nañ julli waaye amob yoon loolu képp kuy tabax jàkka walla ngay def ci jàkka dara da xool alal da ngay ci biir jàkka ja jël alal ndax alal ju lew la wala alal ju lewul sa nga def ko tamit ngir yàlla bu ci bëgg ñu ne ah diw de moo defar jàkka ja diw ja def ay milliards la ca def diw moo def nangam diw moo def nangam déedéet lépp lu waa ji def na koy def ngir yàlla ndax képp ku def ngir yàlla su àllëgee ka tax ngay def mën naa am ngeen am ay jafe-jafe nga bàyyi jëf jëf kon yàlla taxul woon nit nag buy def ngir yàlla lépp lu ko war a traversé ci kaw suuf day xam ne suñu borom subhanahu wa taala képp moo doon tax muy def kon man waamal liman ida amilta lii tari daaw muy subhanahu wa taala bul jëf ngir ne diw a tax may def bu di woon diw nangam bu di woon diw nangam danga nga naan bu dul woon yàlla mi ma bind sàkk sàkk ko duma ko def kon nañuy def ngir yàlla loolu nag dara jëtiw ci mooy sellal dana waral yàlla nangu liggéey bi ak jëf ji moo waral xadis boo xam ne Aysa nettali ne yonent bi saasam nee na képp ko tabax jàkka jubluwu ci lu dul jëmmi yàlla ngistal taxut ndéggital taxut puukarewu taxut dégg nga jaay maanaa taxut dara taxut yàlla képp tax mu def ko nee na kooku bu àllëgee suñu borom dana ko tabaxal benn kër ci àjjana bokk yi nan bokk ragal yàlla ñu ñëpp topp yàlla ca sellal li li ñuy def ci suñuy jëf ca xam na jëf munta yàlla mënu ko nangu mukk lu dul ci ak sellal ak jub wa anna al masajida lillah fala tad'u ma allahi ahada jàkka yi tey buñ ca demee ñu bàyyi suñuy kaddu li ñuy wax ci biir jàkka yi jàkka yàllaa ko moom yàlla dong lañ fa war a tudd yàlla lañ fa war a bàkk yàlla lañ fa war a kañ yàlla lañ fa war a jaamu keneen ku yàlla waruñu la faa bàkk waruñu la faa kañ waruñu la faa jaam borom bi subhanahu wa taala dong moo yooyu yoolu ci biir jàkka yi kon bu nekk ci biir jàkka ji ak jàkka ju mën a doon suñuy kaddu ci biir jàkka ji nan xam yan kaddu la kaddu yiy jàngale yuy fàttalee nit ñi yuy waaraate yuy tax nit ñi jaar ci ak jub dégg nga yuy wéetal yàlla yooyu kaddu lañ fiir yëkkate waaye kaddu taggaate santaate gërëmaate nangam nangam yooyu kaddu du kat day jàkka ñu bàyyi waale xel loolu wa anna al masajida rek fa lillaahi fala tad'u ma'a yi xaris bi ni mujjante la mooy anas nee na yowmal qiyaam akbar borom day day woote ay na jiiraan yi ana samay dëkkandoo ana samay dëkkandoo nee na malaayka ne yow yàlla yow yàlla ñan ñoo gën a yell ci dëkkaale ak yow mu ne ko mooy ñiy dundal jàkka umaarul masajid mooy ñiy dundal jàkka mooy ñuy dund tekk kon bokk yi maa ngi dénk saa bopp di leen ko dénk nañuy góorgóorlu ci jàkk yi di julli si waxtu yu juróom bu amul benn ngant ñi am ngant te mënuñoo julli si ñuy julli si ajjuma ju jot ñu nodd nag ngay dégg nodd ba a julli si yonent bi saa sallam ne yitte woo naa ñu nodd ba noppi ba tàmbali liqaam ma dagg julli ga jiital kenn dem fekk ñooy julli ci biir kër ya ma taal seen kër yi ñëw ñëw ñëw eggale julli ga te julli ci mbooloo ëpp na julli yow képp juróom-ñaar fukki daraja kon nañuy jëm ci jàkka yi ak ci jumaa yi di julli ji di jaamu yi borom bi wa taala yàlla na nu yàlla defal dégg ak topp rabbana atina fi dunya hasana wa fi l-axirati hasana wa qina azaba annar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab wa kun muaysan lana min charri si xasadin ma charri fammin wa charri alayni yàlla wa charri shahrin wa charri alqalqi inidihim ma jinnihim wa zawadi summi yàlla aqulu qawli hada wa astaxfirullah li wa lakum wa li saa'iri muslimin amin boo leen bëggee am mboolem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bés fu ñu bind abonné bu leen fàttee bés fu ñu def cloche bi foo leen mën a ne ci àdduna bi ngir ngeen mën a am mboolem vidéo yi fi bàyyikoo wajjahtu wajhi liman asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokk julli di mbokk taalibe yi yéen ñi bëgg barkeelu si liggéeyub taxawub jumaawul Tuuba jëm si entretien wala maintenance yu màggal Touba dundal weeru koor dundal gàmmu saytu armée lu bàqiya yi taxawu personnel bi si wàllu social ak yeneen waa association nationale muqaddimatul xidma Espagne ngir indi ak jàppandal si liggéey bii si ndigalu sëriñ Afia Bousso imam mi jiite daayira bii ñooy yëgal mbokk taalibe yi nekk si diaspora bi na waa Europe ne nag mën nanoo wéy di yónnee seeni i barkeelu si transfert bancaire si compte association nationale muqaddimatul banque numéro ES 17 21 00 15 11 87 02 00 500 647 BIC Swift CaixaBank BBXXX mbokk yi ku si nekk si Sénégal mbaa ci Afrique compte Orange Money yi mooy compte yi nekk si moomeelu daayira bi di 77 696 86 17 képp ku soxla yeneen i leeral jokkoo ak daayira bii yi si numéro yi ñu bëgg joxe mosquée Touba 77 434 33 15 wala si 76 697 60 41 bu dee Europe jokkoo leen ak Serigne Assane Diop si plus 34 632 581 998 Serigne Fallou Dia plus 34 631 216 262 jumaay Touba ji nag Serigne bi nee na yàlla sunu borom may na ma ab tabax bu ne seng bu fi des ba aljana waxoon na it ne ku feeñ si liggéey bi. yi nga feeñ ba faaw yàlla nañu yàlla dimbale ñu mën di si jëf ba faaw te yàggal fi sunu kilifa gii Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké ak mboolem njabootu Serigne tubaa gépp jël ngeen jëf